def moo def six combats cinq victoire ak benn match nul defe naa ne mbokk yi xale boo xamante ni dafay doog dugg si làmb defe naa ne bu defee palmarès bu mel noonu palmarès bu rafet la palmarès boo xamante ni palmarès bu baax la. mu am combat nag ci digganteem moom ak Tony Junior waaye mbokk yi Tony dafa am empêchement ñoom ñaar ñoo fa woon teew mais euh, Tony jotul a ñëw. combat bi nag Fallou Ndiaye moo ko tëgg ñu ko ciy nuyu bu baax a baax moom jiital Ndiaye production di ko jaajëfal di ko wax ne gis nañu liggéey bi muy liggéey gis nañ ni muy jàppalee xale yi di xool combat ay combat yu neex la mu koy mu koy fexee taxawal di ko jox askanu suñu askanu làmb ñu ciy bànneexu tey nag ma daal fi nga xam te ne mooy Jackson ma bàyyi ko mu nuyoo ñuyul waxtaan wi Jackson nuyu naa la ah salaamaaleykum bismillah mina seytaan rajim ñu ngi nuyu ñëpp képp kuy seetaan wasaare làmb ak jàmmaarloo di nuyu Ousin di nuyu waa Seras fu may liggéeyee di woy waa buun fu ma dëkk ak waa Fouta ak waa Daara Jolof ah ak képp kuy bëggee Jackson 2 rek maa lay nuyu di la siyaar. Mm-hmm. Euh, tey de dafa mel nii da nga xaw a ndu waar yooyu noonu. waaw non tey da ngaa simple nii rek saa dañoo nekk si mbégte quoi Sénégal dafa jël coupe moo tax xam nga mooy loolu. mais ñu ci bàyyi bu la gisee dañ naan Jackson est-ce que mbër la ndax du def yu mbër yi def di njaab fii di sol yenn solo yi da nga da nga da nga civilisé nan la demee noonu. waaw man moom làmb dama kaa jàppee biir géew quoi. boo nekkee si nit ñi nanga nga correct xam nga yor benn melkaan boo xamante ne ku la gis da lay naw quoi mais nekk si mbedde ak koñ yi di def affaire def loolu day tax ñu yëpp mbëri rek quoi lam moom man biir géew laa ko jàppee su ma si meekoo biir géew da nga naan ki nga gis kii ak kee bokkul quoi man moom noonu laa mel. boo nekkee ci biir géew gaynde ngay nekk. waaw su ma nekkee biir géew moom beneen melokaan laa mais su ma nekkee nit ñi da nga naan kii sax est-ce que mbër la affaire kañ nga dugg si ci làmb. fin 2017. fin 2017. waaw boobaag léegi kon 4 ans ah. waaw 4 Euh, ñan nga jot a bëyal defe naa ne cinq victoire nga am benn match nul. waaw bëri bu Dóor Dóoraat. Balak waaw ak Modou Baye Fall. fu ngeen bëree combat boobu. stade Iba Mar Naaru Géto numéro 2. Hmm. ak bu Doudou Bakassar. ak euh, Fils de Zalo Raskas waaw. naa ne bëri ngeen combat bu waaw bëri nañu combat bu métti dañoo machine sax. Mhm. mais ñu ci bari ñu ci bari dañ lay jël. daanaka dama naan duñ la xam. waaw duñ la xam parce que bu ñu ñëwee dañuy jël combat bi jël favori bi yëpp teg ko ci kawam. mais bu ngeen simee ko ba laale ba noppi ci la ñuy doog xam kan mooy Jackson. waaw ñun moom loolu moom mis nañ ko quoi ñu am combat ñëpp ne kii moom mun mais loolu dara ndax ku nekk da ngay wax sa xalaat rek quoi mais luy xew moom yàlla rek moo xam suñu borom te moom am nañ gëm boo xamante ne nii. Hmm. suñu bépp morom bu ñuy bëreel incha allah gëm nañ ne ñoo la mun te ñoo daa ko bari amul lenn lu lu mbëri def si làmb te ñun mënuñu ko waaw Euh, sa combat bi nga xamante ni dox na ci diggante Tony Junior. waaw ah. euh, démarche bi métti woon na parce que ku nekk xam na ne Tony ndaanaan la te yow tamit kenn demul nga des. waaw démarche bi métti na méttiwul ndax boo xoolee am na benn promoteur bu ko njëkkoon bëgg quoi te balaa Tony Junior bi sax. am na sama yeneen combat yu yu naroon taxaw day dem. ba taxaw rek dégg naa ko. léegi lan moo ba ci digg bi ñu ne na ñu dem ba ci biir ne yàquwaat na beneen combat demaat ba ci digg bi ñu ne na demaat ba ci biir ne yàquwaat na lu waral loolu. xam nga bëri si nekk dafa bëri ay nit xamante ne. kii naa la jàppale jàppale yaakaar moom soo amee ñaar nit ñoo xamante ne xam nañ làmb rek bu la waxee baax na rek jëlal quoi mais tey da ngay jël keneen ki wala ne la kii baaxul affaire loolu mooy yàq làmb ji quoi te baaxul maanaam day fay dem ci sëriñ non wala sax ñu ñu ne ay ñoo la fekk fekk raw ñoom lañ nekk say défaite ndax yaakaar naa ku tëg la ay 4 défaite 3 défaite mhm. ki nekk si 6 combat am nekk baax kooku mënoo kaa bañ déedéet làmb ji daa bëri mooy tuntu quoi loolu mooy yàq làmb ji mais sa diggante ak Tony Junior waaw maag Tony kii ma ko njëkkoon bëgg jamaïcain mhm. moo njëkkoon bëgg làmb ji làmb ji ñu démarché ko ba mu ba desul lu génnee avance mhm. avance xaw a yéex nag après ci la Fallou Ndiaye déggee combat bi ne ñaari mbër yi bëgg nañ après mu si la wooyee Assa Minage ñu taxawal combat bi ndax Tony kenn ko na xam ne ni Tony ndaanaan la. Hmm. day wax ci lutte simple bi bu ñëwee vite fait lay def. waaw ah. dib lay def wala mu def ko jooni jooni wala des fois sax mu def la mais lamb dafa nekk loo xamante ne ni nekkul benn combat. man hmm. dama damay préparer lamb pour nekk champion bu mag. Mm. bu nekkee da ngay pare pour nekk nag bu nekkee da ngay moytu moom jarul ngay bëre quoi na nga na nga bàyyi xool leneen mm-hmm. ndax làmb amul leneen lu yomb ndax si kaw moo gën a metti te fa lañ bëgg a dem incha allah wane suñu bopp bu baax a baax bu nekkee Tony ñun dañ koy moytu rek barke Cheikh Tidiane damay bàyyi làmb dem xool leneen quoi ndax Tony mbër la comme yeneen mbër yi rek combat incha allah soobee yàlla yàlla may ma ndam si mais nekkuñ fi di def na lii wala def ne non man sama li ma am loolu a gëm te incha allah loolaa indi le 27 bu soobee yàlla kon amuloo leen looy xalaat wala looy jiixi jaaxa ci moom. mu nekkoon damay xalaat kay kon damay dem xool lu nooy ndax combat yu bëri ma doon proposé mais maa ne baax na mu nekkoon damay wër lu nooy damay xool comme yeneen mbëri lu ñuy ne soo ko jàppee rek day tëdd. waaw yow moom moom benn boo xamante ni danaan combat jàlle la dañuy def combat yëpp moom ay combat de bi la. non non man sa sax su ma jëlee combat ñëpp dañaa moom moo mun mais mun boobu moom si biir mais bu ñu duggee parce géew bi su ma simee ko ñëpp xam ne kii mooy loolu. xam nga Tony bu baax xam naa ko. ndax man moom dégg wala yaa ngi koy wala. man moom mun naa wax damaa sob ndax làmb moom bépp mbër mu ma si xamul rek siiwoo ndax man damay siiwul làmb. ok mbër laa xam. dégg yàlla xam naa ko bu baax baax nag. loolu de baax na ci ndax des fois nga nga jékki-jékki mbër wala nee na dañuy dox sama combat kooku mooy kan wala kooku moom ban combat la mujjee ba yooyu leen lay def naan xamuma ko. man bañoo ko ñun suñu école sax mbër yi fa nekk si am combat bu ñu la wooyee wax la ko man ngay woo ne ma diw lañ may wax ma ne la baax na wala baaxul man moom damay suivre làmb mbër yëpp laa xam ku nekk xam naa loo mu ne ak loo mu ne wul. kon kon defe naa ne Tony moom umpale woo ko. non dégg nga ma lépp laa xam laa la wax. lan la gën a mënee. Tony bëre la mën champion la moom macha allah daanaan la. non lan la gën a mën bëre fort. non dañoo xam ne day takk day bët moom ANCAR daal foo ko woo si bëre moom da lay wuyu. dina xeex mun na bëre dina xeex moom. est-ce que mën na xeex. <laughs> man loolu daal du ma si sori. incha allah <laughs> le 27 yi. mais yaag moom ku dàq bëre. man de amul benn mbër buy takk ngeen mu si laa mu dàq ma bëre. ci li nga gëm yow wala li am. lu am ndax mun bëre mooy lan. Hmm. la mooy mun bëre yow. man xaw ma dama lay laaj. mun bëre mooy boo waree daan nga daan buñ la waree daan nga moytu bañ a bu buñ la jekkoo fu sori. buñ la jekkoo nga fexe ba génn si. loolu kese mooy mun bëre. yaa moom ku dàq xeex. sama sama génération maa ngi dàq xeex. pourtant tuuti lay xeex de des fois mu jëm laaw yoo xamante ni. laaw yooyu de bis bu ko xeexee man ay mbokkam weddi soobee yàlla. mais defe naa nag moom ngi waaj combat bi parce que bi ñuy déggante defe naa dafa mujj déplacé wu fi mu nekk pour mën a dem feneen pour mën fa waajee combat bi aisé wu. waaw ndax combat bi nee na ma combat bu ma jaral la. waaw combat moom da ngaa jaral boo weesu man mii ndax ñëpp nee nañ moom moom moo mën kon man la war a gën a mën a jaral ndax ñëpp moom la jox ma fu mën a waajee samay combat ñëpp nañ ñëpp nee nañ moo mën képp xam laamu rek dañ ñaan ah, booy waroon jël. mais est-ce tamit moo la mën man benn góor ñoom ñëpp wax loolu. góor moom balaa nga xay yab nga war ko man kenn mënu loolu de ma mën nga maa gis nii rek may dox nii quoi mais bis bi ñu jëflante di nga xam ne yow yaa mën wala mënoo ma quoi. nga déggee loolu ba la jege wala nga xamante nii nii xam nañu la moo la mën boo déggee wax jooju ni mu lay def. man loolu mis naa ko ndax man yàgg naa bare tournoi yàgg naa bëree mbapat combat boo ma jël ñu ne kii moo la mën te man combat yooyu sax man laay gën a mën a gañe ak combat boo xamante ne dañ naan man maa mën waaw loolu moom mis naa ko loolu dara si làmb chaque chaque jour làmb ku nekk wax lu ko neex lu xew si moom yàlla moo ko xam mais man ah, boo xamante ne ni amul ku ma mun sama morom benn mënu ma wallahi azim ci wàllum entraînement foo ci toll parce que defe naa ni combat moom fi mu daanaka une semaine la ci des wala boog une semaine ak quelques jours. instant moom finition moo des rek ndax yaakaar naa di boobu rek boo amul doole moom instant bi doo amati doole quoi chaque jour ñu ngi entraîné deux séances waaw dañuy noppalu lu bëri. ndax ñun dañuy liggéey quoi mee suñu amee combat dañuy arrêté plus de euh, deux mois et demi waaw toog sama recours yi entraînement di waajal sama combat nag incha allah. entraîné récupéré maanaam récupération bi daal moo ci ëpp. waaw entraînement si yoon li ngay noppal moo war a ëpp quoi ndax soo bëggee entraînement yi feeñ mais bu nekkee da ngay entraînement lu bëri te doo noppal tamit amul benn yoo xamante ne bu ñu jógee ngoon gi contact guddi gi dañuy naam seen tànk ba une heure du matin ñu dem tëddi. loolu bëgg yeewu fajar dem entraîné ji. loolu pertement ndax chaque jour nit war nga nelaw huit heures de temps guddi gi nga a reposer bu baax a baax. man moom trois heures de temps laay 22 heures yàlla. 22 heures waaw 5 heures et demi ma jug dem entraînement yi ñëwaat. man de <laughs> bëggee dara moom yu bëri da ngay mhm. bëri da ngay moytu quoi xam nga instant moom début moom day métti trop xam nga da ngay gis say morom ñu dem di def looy neex mais yow moom daam loo visé. te daam da daa foo dem il faut nga moytu yu bëri. xam nga lan ngay wax lan ngay wax Tony moom mi xam te ne tey waroon na fay toog te ñëwul lan nga koy yóbbante. ah Tony instant yii du ma ko wax dara ndax maa ngi dégg ñu maam dafa gaañ. maa ngi koy waaw loolu la ma ñoo ngi koy masawu di ko jaale maa ko sigil di yàlla yàlla ko yàlla yërëm. ay mm, mm. noonu quoi. Mm-hmm. te ñëpp dañuy yéente benn jour moo ñu boole rek le set bu jeexee dañuy nekkaat ay mbokk. Mm-hmm. waaw maa ngi ñaanal mu am jàmm ba le 27 incha allah mu ñëw ñu bëri ko ci fu ak fayda nag ak ngor ak jom ndax bëgg naa combat boobu dàq si jour lamb yooyu. lamb yooyu yëpp si combat fa parce que nee nga ma bi mooy dàq ci combat yi. su fekkee. waaw bu nangoo dëggal boppam bëre joxe comme nu mu doon bëreeg gars yi bu ko bëreeg man incha allah nag dina suñ combat dina neex da nga am da nga am da am jiixi jaaxaa toonu ñëw ba ci digg géew bi jàkkaarloog yow di taxaw di dégloo wala di xaar. ndax man yàgg naa am combat ñu ne moo la mën mais bu ñu xasee ba ñëw ba si biir géew bi pour mbëri taxaw dëggal seen si man day jafe ndax ñoom nu ñu may gisee nii ak nu ñu may gisee si làmb ja bokkul léegi bu ñëwee dañuy dañuy dute quoi duñ nangoo dëggal seen bopp hmm. mais am na yaakaar bu taxee dëggal boppam suñu combat dina neex lool te ndax bëgg naa bëri bëgg naa ñu bëri ba amateur yi kontaan quoi incha allah. mais nag euh, bés bi da ngeen ko bokk ay xale yoo xam te ne dañuy mobiliser. Ah. ay xale yoo xam te dañuy neexal bés wàllu mobilisation ak supporter yi fan ngeen ci toll. waaw moo tax ma ne journée boobu day neex ndax yaakaar naa journée bi ñëpp ñu fay ñëw kenn ëpp ma si mbooloo boo gisee sama commande man ak man ak raskaas mhm. man moom macha allah fu ma dëkk moom maa leen sant di leen gën waa buun dañ may jàppale bu baax a baax nag waa Seras dañuy ñëw jënd ticket yëpp te incha allah dinañ teel a ñëw stade neexal ko ba mu neex bu soobee yàlla te bu ñu bëree ñëpp dinañ kontaan incha allah ah, bu loolu neexee nga woo ñu woo sant gërëm wax leen nag nañ ci waaj <laughs> te gars yi ñaan ne leen ñu jàpp booy bu baax a baax a baax a baax. man jàpp ñu ne saa yi mënuñoo jàpp mbër ndax li ñu fayee ko mënuñu jàpp kenn dañuy wut muslaay rek ñëw bëree si. ak butéel yi ngeen andi yëpp. loolu muslaay kese la entraînement moo wóor entraînement ak ñeme ak sañ-sañ mooy daan mais instant yi gàllaaj daanul kenn ndax ñun li ñu fay ko mara pour mu liggéeyee la toggal si guddi gi di ba ba. ba bës da ngay fay xaalis bi. mais gis naa ci maa yoo xam te ne sax ruñ ci mbëri ndax nee nañ mbëri duñ fay ba pare balaa ngay mën a liggéey mbay il faut nga fanaanee jàpp ci ba. ba sa jot mbëru ndaw moom dafa métti moom mbëru ndaw moom soo koy jàppale moom il faut nga lii ndax ndax maaraay moom bu ñu lay toogal guddi gi moom il faut nga fay leen lu ko jar ñu mën a bàyyi sa nelaw yu toog ma ne ñun moom instant dañuy wut muslaay rek waaw di woo samay mbokk nag mhm. di woo samay mbokk xalpulaar ah waaw bandiraaɓe xalpulaar onon foof komi dañde combat min e tooni goora ñang inchallah nanga henne feewi so allah jaɓi ko le 27 daara jolof e fouta mbumba pete gollere bokke kara woyndu mairie foof onon foofu nangoo heen no feewi inchallah cikkitte han ndi wo sam mbokko jolof jolof yi nag waa jolof maa ngi woo ñëpp waa daara waa angal pël angal islam angal njaaxaay di woo waa buuna di woo suñu monsieur le maire bees bi Adama saar ñu ngi koy woo mu jàpp si combat bi di woo suñu président daral bi Amatalla jàpp na si combat bi ak Fouta Sow mouvement kosam ko ñu ngi koy woo ko sama mag la sama lépp da siy jàpp bu baax baax di woo ñoom am njaay xam nga ñoom baaba ñoom baaraan mi ma àndal di woo sama gaa yëpp ah di wax combat bi comme ni nga ko doon waajee rek combat bi méttiwul incha allah bu soobee yàlla de dinañ ko duma dinañ ko daan incha allah bu si yàlla àndee. gis ngeen dinañ ko duma dinañ ko daan euh, ci diggante ak Tony la woon to moom digganteem ak Tony la war a bëreel Jackson 2 ak Tony mbokk yi combat bu neex la ñuy gërëm Fallou Ndiaye bu baax a baax di ko wax ne gis nañ liggéey bi et kontaan nañ ci yow di leen jox dig daje beneen yoon jàmmaarloo Wassare Lamb gars yi ngi leen di nuyu kilifa gu mag ziar naa la baax a baax jaa ngeen Merci.